waaw ñu may leen tuuti ngeen euh, ñëw incha allahu rabbi man ngeen ko partager au maximum partager leen ko massivement mu tas ah gars yi partagé leen massivement rek ñu am euh, amin amin amin amin amin amin amin amin amin jërëjëf oh. voilà partagé leen gars yi partagé leen partage leen massivement ñu amal waxtaan bu gàtt rek du gudd dañ koy euh, gàttal gars yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax maa ngi leen di ziyaare bu baax di leen jox seen wàccuwaay et eh, je pense que lii nga xam ne moom mooy ordre du jour tey ci Sénégal on a sept cent détenus te lan mooy ordre du jour suba ci Sénégal mooy on a sept cent détenus politiques lan mooy ordre du jour ginnaaw suba ci Sénégal on a sept cent détenus politiques voilà loolu mooy ordre du jour ndax ci réew bu démocratique réew moo xam ne bépp sénégalais dafa am ak ak yelleef waruñoo am juróom-ñaari téeméeri nit yu tëdd ci ay kaso y compris le numéro deux d'un parti politique très solide comme le PASTEF muy Bassirou Diomaye fay ñu bàyyi ko ci biir kaso Biram Souleye Diop gis nañu vraiment député assemblée nationale yi ci boppam dem négocier release am comment se fait-il que waa impôt et domaine di toog di seetaan ku mel ni Bassirou Diomaye Faye ñu bàyyi ko ci biir kaso ça fait déjà trois mois Fadilou Keita depuis décembre mi ngi ci biir kaso Sénégal yi nit dof Abdou Karim Gueye Cheikh Omar Diagne la liste continue sept cent détenus politiques ñoo nekk ci prison wu Macky Sall yi loolu mooy événement ci Sénégal waaye dem barricade buntu kër nit ba mu neex la nga gàddu say dëbës yóbbu et j'espère que yóbbuwaale nañu seen douche cacophonie bi parce que boobu day gën a leeralaat rek nekk c'est des mécréants ko ñu ko kër góor gi amuñu fa lu dul ñu def fa euh, vous savez bien xasawal koñ bi yàq ko dégradé koñ bi donc ñooñu bu ñu gàddoo seeni ay bagages dem du événement c'est un non événement te loolu la bëgg sénégalais yi di ko xam candidature Ousmane Sonko sénégalais yi ñun ñoo waratul di tëb di dal waaw sonko dina bokk sonko dina bokk sonko dina bokk xam na lu tax ñoom xam nañu ne sonko dina bokk Macky Sall xam na ne sonko dina bokk ñi mu àndal xam na ne sonko xam nañu ne sonko dina bokk man nee naa leen ñi dee kay mooy ces petits mécréants de députés yi dem assemblée nationale bëggoon vote loi boo xam ne yàq ci seen bopp lañ ciy gën a jëlee ka njariñ waxoon nañ leen ko avant nee nañ leen ku laal maki Sall yàqu maki Sall képp ku ko laal da ngay yàqu Khalifa woo Sonko woo Idi woo Karim woo képp ku laal Macky Sall cee fini Ousmane Sonko mii tey bu toogoon ci benn table négociation ak maki Sall il est fini il est pourri dootul baaxati waxtaan nag mënut a ñàkk seen diggante maanaam euh, chef de protocole kii chef de protocole kële wala communication wu kii ak communication wu kële mën nañu daal xool benn point de négociation parce que c'est très hostile ce qui est entre eux te ñun toujours dañuy ñaan yàlla comme on est des démocrates que yàlla bu defee président wàcc comme institution la toujours booy wax ci réew moomu muy lu baax ak lu bon di nga ko wax ci institution boobu donc di nga ko wax ci nit kooku donc nous on a de la classe ñun dañu li ñu am classe la tudd dañuy xeex ak yow nag dañuy xeex ak yow ba dugg boîte vocale dañuy xeex ak yow ba géej gi fer waaye bu ñu paree xeex ak yow on na per pas notre temps à te euh, maanaam di la bañ we don't have that time amuñu jot boobu comme ñu bari tey dañu doon ñaan yàlla ñu ne ah ñun de ñu ngi defante man defantewu ma kenn ñun dañuy xeex. mais bu ñu xeexee bu ñu paree ci xeex bi dañuy delluwaat ci suñu ay réalité Cheikh Bara Ndiaye dañ ko war a bàyyi parce que jàppam amul dara lu ko gën a injuste Cheikh baara Ndiaye dañ ko war a bàyyi mu ñibbi këram ndax jàppam amul dara lu ko gën a injuste ak ñeneen y a sept cent détenus politiques juróom-ñaari téeméeri nit lañu ñu jàpp te teguñu ko ci dara teguñu ko fen ñoom ñu ngi assemblée nationale di comploter di xool naka lañuy ñuy dindee <coughs> naka la ñuy fexee ba Sonko du bokk ci ay élection te ñoom bokkaguñu imaginel nga dem ngay travailler nooy fexe ba nit du bokk te yow bokkagoo yow boo demee dindi loolu waa jële na yéen ñëpp doo leen bokk nag yen yàqu leen seen bopp yéen bokkagu leen sax yéen a ngi comploté di diil nu kii di war a bañ a bokkee ñuy wax mu am député bu réew bu tudd Abba Mbaye te duñ ko ko baal ba léegi mu génn di wax wax yu naxasa xandang yooyu di ñu menacer naan ñu moom day voter tous les agréments qu'ils ont eu à la dans la dialogue léegi yéen seen dialogue bi lu muy njëriñ parce que waa ji non événement bi mu ngi jeex na le non événement que vous avez posé barricade ngeen sonn ngeen dindi ngeen seeni ay barricade yóbbu lem yóbbu lem yóbbu wax nañ leen nee nañ leen Sonko kenn du ko laal Macky Sall moo leen gën a xam loolu man am naa ci yu béy ambassadeuru Amérique Macky Sall joxe ay assurance ne moom mënta laal Sonko du ko laal xalaatu koo laal parce que su ko laalee réew mi day takk man am naa boobu assurance ci yu béy ab nit bu wax ak ambassadeuru États-Unis mu wax ko kàddu yi c'est un non événement delloo siwaat leen seen xel te xam ne Sénégal bi ñun ñëpp ñoo ko bokk quand j'ai écouté quelqu'un comme Amadou Ba comme Amadou Ba laa déglu ma déglu quelqu'un comme Amadou Ba mu dem toogi ci télé Maïmouna Ndour fay di yëkkati ay waxu naxasa ci nit koo xam ne nga ne dangaa aspirer jiite réew ngay jël ay fen xam nga fen nit ñi dañ ko jàpp tuutal ko waaye fenkat mooy sàcckat sàcckat mooy reykatu nit reykatu nit mooy mooykatu yàlla tous ces crimes là dañu bokk famille c'est la même famille de crimes un menteur peut tout faire nit kuy fen confortablement man naa sàcc confortablement te nit kuy fen confortablement di sàcc confortablement mën naa mooy yàlla confortablement te kuy mooy yàlla confortablement di sàcc confortablement di fen confortablement man naa rey nit confortablement erreur bi ñu daloon ci Macky Sall voici l'erreur erreur bii moo ñu daloon ci Macky mu ñëw taxaw ne Sénégal yëpp sàcc naa seen nangami xaalis waaye dañ ma ko may Sénégal yëpp jël ko fal ko président de la République tey on est dans les conséquence Macky du nit kuy nit di négocier bëgguñu ngeen génnaat ci réseau yi commencé fii mercer di tàccoog di nangam ak Seydina Ousmane Moussa Lemek ziyaare gis nañu xale yi macha allah kontaan ngeen d'accord mais du événement waruloo waruloo leen woon kontaan c'est un non événement li ñu def Ousmane Sonko dañ ko tooñ jaay ko doole sénégalais yi nag jël seeni ay matuwaay ils sont bien avertis te fan yii di ñëw nee nañu leen dans tous les quarante cinq départements du senegal dañuy jóg ñu baare Macky Sall yoon bi pour mu génnee détenus politiques yi wax nañ ko na bàyyi détenus politiques yi ñu ñibbi seen kër bu mu indi senegal benn gilaawaali bu dul loolu lépp li xew ci Sénégal Macky Sall la ko indi député yooyu jaay seen ngor nag te xam ngeen seen bopp yéen ñi jaay seen ngor te ngeen appelé ngeen woo population sénégalaise bi à la guerre à la guerre comme à la guerre bu yeboo ngeen waajal seen bopp te xam ne Sénégal bi c'est fini pour vous yéen pare ngeen fi ñu wax leen ko nañu libérer les détenus politiques moo gën sept cent détenus politiques ci dëkk bu démocratique du yoon it's not it's right loolu baaxul ci suñu image sept cent détenus politiques Macky Sall tey amul fenn foo mën a woo ay bailleurs de fonds ñuy ñëw ci Sénégal ne dañ fay investir loolu mën ta nekk Sénégal investisseurs yi ci boppam ñoo koy daw ndax problème bi fa ne et on on on amène un homme qu'on pense responsable muy Amadou Ba ñu yaakaar ne bu ñëwee toog ci kaw plateau dina fi wax lu am fulla lu am fayda muy yëkkati waxu naxa sa xandang bi di ko teg di menacer Ousmane Sonko waaw bañ ko tëjee ci këram ak gis nga lii ak gis nga lële ça c'est sa vraiment yàlla nañu yàlla taxaw ci senegal voilà donc tey moom fii laay yemale waxtaan bi ba ci kanam incha allahu rabbi ci ngoon gi ma ñëwaat continuer waat waxtaan bi ak waa wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu